Diallo rek lim la mën a jox ci ay millions kenn mënu la wax. te xoolal le mec le mec il m'a forcé mu am benn conversation moom comme si moom daf may jàppale rek nee na comme si daf may ce que xam nga loolu. moom moom ci moo tëgg lépp ah. tëgg lépp moom moo tëgg lépp moom moo ma wër si gis ma man xaw ma woon kan la mais dafa si duma ko waxoon ne am naa benn cible boo xamante ne le dafay dem di koy seeg moom rek. Mamour Diallo aussi ñu dugg dem maître Sow yor naa benn lii nii li yoo xamante ne maître Sow moo ko bind si loxo numéro jox mako dina dinaa la ko jox maître Sow ya maître Sow ñom ñëpp ñu wax si après ñu ñom ñu ne mun ndax mun nañ am sperme même ma ne leen sperme comme ça veut dire quoi yéen. est-ce que ay nit kenn et tout ça ñoom ñoo ma wax ne dama retourné waat li nga xamante ne duñ ko def say ni doom déjà loolu noonu c'est gis nga nag gis nga loolu noonu rek loolu noonu rek. ce qui est grave. luñ ci mën a. liggéey et pourtant am naa ci.

xam naa. kenn xamu ko parce que. confiance bi nga am sama papa mosuñu wax mosuñu wax lu jëm ci bi nga am ci man c'est-à-dire li nga mën a wax man. li nga mën a wax man mënoo koo wax ak kenn te dama lay wax confiance la boo xam ne sama diggante ak yow boo xam ne lu ñuy téye rek denc. voilà parce que nit il faut que mu am ku nekk ci wetam dimbale ko comprendre nga bu baax. mais man doomu nax rek jamais dama lay dimbale jamais maa ngi ak yow ba nga dee yow waxuma la dara dama lay téye. mais tu vas ba ni ñuy dee. wa bien sûr pourquoi pas man maa lay jox Cheikh Ibrahima Niass déggoo lu ma la yow loolu bul sonn. loolu boo ko tëddee instant bi loo si tegaatoon nii ba nelaw jeex na. loolu laa noo Cheikh Ibrahima soo si tegaatoon ba dem nelaw. loolu amul benn problème loolu man maa la koy jox waaye dama bëgg ñun tamit yaa ngi dégg ñu am loo xam ne luy jëriñ ëllëg la. ñun ñëpp am na problème man bu fekkee ne man man d'accord naa bu fekkee ne dañoo wax ne benn dinaa fa fakket bu ñu waxee ne mënuñu defal compte je sais mën nañ ko def sa compte. bien sûr. bien sûr dañ koy jël dama koy jël. mais nag day après dañ koy jël léegi daal li ma lay wax daal mooy. loolu ñëpp la précoce. Hmm? fii day ko sax loo xam ne séeréer nga xamoo ki am na loo xam ne su fekkee ne doo dof da ngay xam lu xew lépp dégg waaw mu ngi noonu te li xew lépp xam nañ ko ah loolu mooy problème yow mii nday mbili gi nga xam ne yow yaa yow yaa waral coow li yëpp ñu xam ne coow li yëpp yow la te lépp c'est faux lu tax yow duñ la jox ay milliards dañ la ko war a jox aji déjà tey dinaa leen tiital parce que je, je retourne vers François Hélène Gueye pour lui dire que de, euh, samedi suba incha allah dañ def live waaw léegi nag man des révélations yaa ngi dégg waaw mais man dinaa lay xelal ni ngay def pour toog da toog ne leen dama bëgg kër nañ la tabaxal nañ la jox clé à mais yaa ngi dégg mm-hmm. soxlawu sax clé à main nañ la defaral terrain ñu jox la xaalis bi ndax mun nañ la jox terrain bindal la ay kayit ak yëpp fekk ne ñoom en domaine duñ ko duñ ko sottil ci yow comprendre nga lu ma la wax dafay nekk mu. mais ñoom man xam na xam na xam na xam na xam naa leen ay sànqeet la ñoom ñoom te ñoom xam ils n'ont pas intérêt ma wax loolu moom xam naa xam naa ko. ils n'ont pas intérêt ñoom ñëpp tey mu xoolal attends dinaa photo benn benn liste ci ñi nga xamante ne jot naa leen gis. su ma su ma su ma su ma la ko waxee sax je vois pas mon croire. ñii di ay doomu aadama moo tax ils n'ont pas intérêt parce que dañoo foog ne benn une petite gamine lañ nekkal boo xamante ne xamul dara def la et tout ça te xamuñu lépp lu ñuy def xam naa ko. dama leen bàyyi ci biir rek. mu ngi noonu nag léegi nag bàyyi ci biir boobu nag te xam ne ñoom ay fen la léegi nag par force nag mu neex mu naqari dafa jot ci taabal nga ne leen yaa may dégg. terrain bi soxlawu ma ko dama bëgg ngeen jox ma ma tabax pour sama famille. attends attends moi je moi ces ces ces ces gens xaw ma ay nitu lan lañ. waaw léegi nag. mooy li ma waxoon sa papa rek yow nit ñi munuñ laa téye ñoom munuñ laa téye di la utiliser ci loo xam ne ay waxu neen la rek comprendre mm-hmm. ba pare nag ñëw bëgg bëgg nag yow duñ la jox sa àq sa àq dañ la ko war a jox parce que xam nañ ne yow sa xel mi xam nañ ne yow xale nga xel mi xóotagul noonu moo tax ñu jox la oto jox la garde corps jox la kër gu rafet pour ngay nekk ci kër gi di nekk ci jaaw nga xam ne belle vie lañ lay dundaloo waaye belle vie am na lu ko lu ko gën. Mhm. xam nga lu ma nga am sa yëfu bopp sa këru bopp am sa su bopp ndax ëllëg lu mënta am yow nga demal sa bopp. Mhm. te mën nañ ko du dëgg. Mhm. É eu బాగోవు సమయం uhum. né? de partir por Sabá. Boca eu hora de deixa. Ah, d'accord, léegi man danaa xool oote su ma oote. xool ko ban jour la ñu mën a recevoir ñu def gannaaw saalu ma dégg nga. ok. incha allah. parce que il faut que ma dame quand même. waaw. Je suis je suis parce qu'il faut que je franchement. parce qu'ils n'ont pas un trait comme moi. ils n'ont pas un trait mort. Tu un suis ils n'ont pas un trait mort. donc comme c'est ça on va jouer maintenant carte sur table. mais suis laa nar a ah. wax yaa ngi dégg ñun lay def dañ lay bëgg a liquider dañ lay bëgg a liquider parce que ñoom xam nañ ne fu nekk ni yow bis boo waxee tas àddina mm-hmm. parce que sa papa dafa ne benn kilifa lañ am gis nga ba muy def conférence dafa ne benn kilifa lañ am ñu ngi koy déglu man nii lay wax. feex sama papa na ma téléphone ne def loo xamante ne si mbir bu ko loolu daw na ma. waaw donc léegi nag ñoom Maître El ak ñooñu du leen aaraay parce que Maître El affaire am mu ngi ciy baax. waaw ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñoom ñoom ñëpp ku si takk képp ku si takk sa affaire mu ngi baax xam na ne moom Maître El xam na ne li mu nekk yëpp ay fen la. mu ne xaara léegi may may jéem a encaissé di lekk léegi ñu ngi koy jox ñu ngi koy moo tax mu ne léegi nag nday mbilli gi nga xam ne nag coow li yëpp moom la topp lu tax moom duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko jox allo ma ne xam nga xam nga yàlla moom tey su doon wàccee mbugalam fekkee tey tey tey tey la ñuy dem àllaaxira man damay bokk rek ah ndax man nekk na complice ak yow toog xam te noppi xam nga boobaa moom ndax fu nekk nii moom mbugal yàlla moom kenn xamul du jeex. mais mais mais c'est-à-dire. Euh, aji suñu waxee loolu complice mooy lu nit dajaloo te booloo mm-hmm. fexe ko mm-hmm. loolu complice la loolu mooy déggoo loolu la wax loolu araam na wala araamul man muy doomu sëriñ te jàng kay xam naa ci dara yow da ngaa yaakaar àddina fii la yem ñun ñii ñëpp yowmal qiyaam kenn xamut suñu yàlla jéggalu dëgg mbugal gu dul jeex la fala imaginer rek bët bu set nga jël sa loxo teg ko ci gaz ci gaz mu lay lakk te gaz boobu doo ci musa teggi sa loxo da ko ci teg te safara si yi ngay gis ci àddina bi xam nga ñaata lañ ko sëppee ci safara su ci àllaaxira sëpp nañ ko ci juróom-ñaar téeméer yoon juróom-ñaar téeméer mooy mooy set déedéet bul tiit arko baax na nag léegi-léegi nga jàng ñu jàngal la ci mbiru yàlla parce que xam nga nit doomu aadama day nekk ci àddina te du jàng du jàng yàlla su jàngee yàlla nag ñu koy wax ci yàlla dana am lu bëri loo xam ne dina ci bàyyi xelam mais nag